Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gagner nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. waaw asalaamaaleykum eh, wa rahmatullah waa ahlu làmb yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan sama vocal fekk leen ci jàmm man la Diop la maire di nuyu xaadim mi ci bunt bi ñu ngi koy ziar Cheikh sar ñu ngi koy ziar Leyti Mamadou Diouf ñu ngi leen di ziar bu baax mu mel ni yéen a fi nekk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay fa tabarakallah waaw li ngeen nekk de am solo xam naa man déglooguma ko sax ba mu jeex mais daal mas naa dégg benn interview bu bu nu interviewé woon Ama Baldé mu ni laata ñoom ñuy génn ci biti di wax yaakaar naa ni am na lu bëree bëri luñ ci def waaw loolu moom mas naa dégg Ama wax ko waaw mu ni avant ñuy génn maanaam di wax ay téléthon ak nan ko dimbaleeg yooyu fekk na ñoom sonn nañ ci bu baax a baax a baax ah loolu nag lu mën a nekk la mais nag. Euh, peut-être daal vidéo bi dégluwuma ko gaa ba mu jeex waaye xam nga euh, nit ku nekk yaa gën a xam li nga mën ci sa bopp te ku yàlla rek tax di ngay def moom da ngay def rek pour yàlla ko xam naa daal buñ ko dégloo ba mu jeex daan ci mën a gën a yaatal incha allah. waaw parce que daal ah wax dëgg yàlla ñu ko mën a dimbale am na Sénégal de waaw ñu ko mën a dimbale am na Sénégal de te ku bëgg. xeyna nak amna ño na ñi ngi dimbalante ci biir waye da leen nga gis nit def ci alalam fo xam si fim koy def ci ndimbal ci walu walu yalla mo mo gëna mo gëna mo gëna yalla waaw waaw des fois euh, mais nak yi mu fay di am lool mais dal nit ñi moom di def nit ñi di leen gis moo leen di gënal ñuy def te kenn du ko yëg waaye wax dëgg yàlla de kooku feebaram bi bi ñu ko waxee léegi yàgg na te ñu ngi koy joobe ci rajo yeeg télé yi lu bëree bëri kon nag xëy na ñàkkul ne am na ñu jaar ci suuf di ko dimbali ñooñu kenn yëgu leen mais aussi euh, dimbal daal wax dëgg yàlla dafa sutura def ci baax nag Ama Baldé xam naa ne moom du toog fenn. naan def naa ci lii ak def naa ci lii wala def naa ci lii moom pour som bi mu ci def gëmu mën dana toog fenn di ko wax. moom Cheikh Sall wax nga dëgg loolu leer nga wax wax nga dëgg euh, parce que des fois moom gars yi des fois tamit aussi seen yenn information moom des fois da ciy xam da ciy am loo xamante ne day am fu ñu koy jëlee day am fu ñu jël day am ay sources yu wóor yu ñu yu ñu ciy am waaye ciy am waaw te li aussi mën na nekk waaw mën ay wax yoo xamante ni mën na jugee foofu noonu wala mu jugee ñu sës ñooñu xëy na mu am ci information bu leer. waaw seeko yooyu moom day am quoi waaw mais ndimbal bi aussi mën na nekk comme li nga ci wax bi ndimbal bi moom mën na nekk waaw mën na ci génn donte tamit mu néew mu bari mën na ko ci génn jàppale ko mais li nga wax tamit aussi juste na da am waaw ama booy la tamit boo ba seetloo ama gëj na bëree ama gëj na bëree boo seetloo gëj na bëree comme bàyyi taxam ñuy wax gëj na bëree waaw ren ji li mu yaakaaroon gis nga waaw saison bi nu mu def ni mu demee xam nga en aussi mu nekk koo xam ne xëy na bari na ay saar yu nekk ci moom donc kooku moom soo bëggee xalaat ni rek war naa war am somme bi wala war naa war a mën a gis ne lii non yaa ngi yaa ngi juum waaw mais nag war na koo mën a jàppale comme ni nga ko waxee waaw te gëm naa ne sax moom dina ko jàpp waaw parce que yi tamit déjà genre genre bu mel ni man tamit xam nga bu ko déggee lire ko xam nga mën na ko ci ne ah kon booy bi neexu ba neexul mais jàppalewul booy bi quoi a na demul noonu ko ci ñoo xamante ne xëy na peut-être jikko melul am waaw leer nga wax yëpp day am parce na ko ci bàyyi ah na ko ci sax jàpp ne ndeke booy bi kat ndeke baaxul affaire yooyu noonu waaw te fekk na amaana demul noonu waaw leer nga wax. non c'est ça lu leer nga wax lu leer wax man man man bu ma leen vidéo bu ma def naa zum parce que tamit donte ak lu mu mënti xew même bu fekkente ni moom xam na wala xamul sax Ama Baldé amaana sax moom même bu ci cinq mille tamit aussi moom dina am la am dina ko ci def ko waaw ah, nekkul loo xam ne moom da ko def ba pare la mu am donte mille francs la wala cinq mille la wala ko ci ah, ngir booy mais nag amaana mu yëkkati cinq cinq millions wala trois bi Ama Baldé loolu <laughs> Ama Baldé amul ak fi saison bi toll ren jii nii Ama Baldé nekk booy bi mu débuté yàggul ñu commencé fay ko million yàggul ak saison bi fi mu toll nii tey ah, mën na la génn son boobu noonu di ko joxe <laughs> loolu bu ko defee saa waay loolu Ama Baldé amul loolu amu ko sax ah, loolu bu ko defee dina ko handicapé ci lu bare bare dina ko yàqal ci lu bare waaw mais amaan na nag tamit aussi mën na ko jàppale sax waaw mën na ci def dooleem aw ñaqam mu def ci la mu am te du ko waxee waaw parce que kii di wax nii bu fekkente ne Ama mu ngi mu mu ngi cay def la mu man ak ak lu mu lu mu mënu koo xam parce que moom du ko def ba pare di génn di ko wax waaw kon donc moom li ñuy wax nii sax yaakaar naa lu yooyu xanaa dama yaakaar daa gëj a génn daa daa daa bëgg bës mais yi wax nii moom loolu moom jërul jërul wax ba ba ba di ko dugal ci ay ay ay ay internet quoi vraiment pour nit ñi di ci commentaire loolu jërul jërul jërul jëru ko parce que am na loo xamante ne tamit aussi moom waaw buñ la ko waxul rek 100 pour ko xam quoi mënoo ko xam waaw wax dëgg yàlla. tamit amaana tamit amaana tamit aussi wax dëgg yàlla ku ne xam ne lam lam lam seex ak ak booy bi donc mën na ci def la mu am mën na ko ci def wax dëgg yàlla waaw te kenn du ko xam waaw du di ko wax kenn du ko xam waaw kon moom fi nekk ne xam naa xalaatam lay waxee rek ak gis-gisam mais nag wax ba léegi amul xaalis boobu fu mu koy fan la koy jëlee. sama gars yi ak lamb bëgg naa leen su doon yéen a am jaam yéen a waaw mais ah mais Baye Mandione dañuy wax moom bii déposé kooku bu feebaree tamit mais Ama Baldé war na ci jàpp kam ka ka mais tamit ah, pour mu génne cinq million wala mu génne quatre millions ku kaagut parce que Ama Baldé am na loolu gars yi bu ñu waxee seen bakkan rek dañuy sóoraale di bàyyi xel cinq millions du du benn cent mille francs wala deux cent mille francs cinq millions liquide def ko ci. loolu dina ko yëg de dina ko yëg carrément waaw mën tamit nag aussi mën a ci jàpp tamit xam nga yàlla da ci def aw ci def la mu am waaw naa sax moom mën na ci jàpp na ci kenn du xam ne moom mu ngi ciy jàpp waaw nag pour mu génne cinq millions wala quatre millions moom def ko ci ah ba doy amul xaalis boobu de su ko génne dina ko yëg de loolu sax. sëñ xaarim siyaar na bu baax di jox sa wàccu waay nuyu euh, bëggee moom ñu fekk ci kaw bëgg nañ ko bu baax a baax xaarim lu leer nga wax euh, yàlla xam ne ko lu leer nañ nañ nañ nañ ko wax ah, nit moom xëy na ku nekk ak sa gis-gis ku ah, nekk sa tolluwaay mais li ngay wax loolu moo gën a am importance loolu moo ci gën a am importance xaw ma nag xaw ma nag def na ko xaw ma defu ko mais loolu mooy li waroon loolu mooy waroon comme moom nee na rakkam la comme nee na rakkam la ça am na cër ci moom kon na ko woo sarkam mu xam na këram sarkam mu jël oto dem këram wala mu woo ko moom fekk këram wala wala wala wala mu am fu mu daje ak moom waxtaan ak moom su boobaa yaakaar naa ni dina yem ci digganteem ak moom mais su toogee rek caméra yi ko mu wax sànni ku nekk jot ci àdduna bi yëpp jot ci kon day mel ni que ni ah am na nu mu demee waaw man daal sama xaat boobu daal laa ci am loo xam ne daal maanaam moo na ko defee ci beneen anam bu budul anam boobu waaw parce que man nit moom bu fekkente ne yow sama rakk nga war naa laa war a mën a yedd ah su ma lay dama lay xam ne dama lay woo xam naa sa kër ma ñëw fekk la sa kër wala nga fekk ma sama kër wala ñu wala ñu xool fu ñu dajee ñu am la ñu waxante ñoom suñu diggante mais lii nii ñu bari dinañ ci condamné booy bi dina ci am ñoo xamante tamit aussi dañ naan kii moo juum dina ci am ñoo xamante tamit dinañ ah kon booy bi euh, dèjà kon moom daal faalewul xam nga kii wala si seen kër rek du fa def dara affaire yooyu noonu waaw doo comprendre daal mais daal ah amaana ah, amaana sax amaana sax mu ngi koy dimbali amaana sax mu ngi koy jàppale Don't donte mu néew mu bari la donte bari na wala wul manam mu koy jappale parce que nit mom muy man muy kenn do def li nga def par nak di di ko wax def nangam am ñoo xam mu ne wuñ lolu waaw. te gëm na ni comme ni ma leen ko wax rek mbokk yi gëna seuss mom liñ ciy def non parce que ku sañon bo amé sa malade fajj ko ah waaw ku sañon bo amé sa du ma ne malade sa bo amé sa soxla da nga koy faj bu say mbokk amé soxla dan ko fajj te kenn du ko waaw gëm naa ni ñi baax ñëpp am nañu yéene jooju quoi waaw ku sañoon bu sa mbokk feebaree ah, nga faj ko te kenn du ko yëg waaye xam nga kenn bëggul taxaw ci mbedd mi di ñu laaj loolu daal jàpp naa ni bëriwul ñu ko bëgg daal kon ku dem ba def ko rek yaakaar naa ni sës nga daal mais ñoom muy wàllu mbër yi ak maanaam ñi ngank làmb jëg yëpp bu fekkonte ni dajaloo nañu ku ci ne am sa juróomi dërëm ak sa dërëm ak yooyu yëpp ñu boole ko def ko kooko day gën a baax rek waaw kooko day gën a baax rek mais moom bàyyi wun ko parce que yaakaar naa ni am na ñu ci def ci moom am na ñuy def ci moom di ko di ko dimbali comme ni ñu ko defale woon euh, saakajoor ak yooyu yëpp am na ñuy def ci moom mais am na ci ñoo xam ne si nag fii ba ba nuy dellu def ci moom kenn du ko yëg waaye am na ñoo xam ne si aussi daanu bëgg des fois ñu naan def naa ko defal naa ko lii àdduna moom noonu lay doxee mais am na wax yoo xam si aussi euh, du waxu public waaw du waxu public nit boo ko jox conseil dang koy woo ndànk ci souf waxtaan ak mom li ngay waxtaan ak mom nga jox ko ko comme conseil bu dee tax ngay def de laa la wax su juumee nga jubantiko sokay dimbali nga dimbali parce que suturo dal dafa bax